asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah mardi 24 mars 2020 ñu ñëw ak yéen ci sunu lamb fi ñëw tey record le soleil wala Leewtoo TV bu dee yëglikaay bi du sunu làmb la moom len la indi coow li nga xam ne wala boog jafe-jafe boo xam ne am na ci combat royal boo xam ne saa bu ñu xëyee daal ay jafe-jafe di ca gën a dugg muy gën a yokku maanaam daal muy gën a lëndëm ci xelu nit ñi muy am nga muy diggante Modou Lo ak Ama Balde ka nga xam ne nag moo di Luc Nicolaï moom ma ca kaso ba moo tëgg làmb ja moo tax nag yëglikaay bi jàpp ne day li nga xam ne nii daal moo di libération Luc Nicolaï boobee daal fulu total maanaam lu lëndëm moo fi mu nekk nii leer ba leer contrat wu combat ba moom mois de juillet lay jeex mu mel ni ki nag moom fi mu nii day doy na waar roi des arènes ba moom jot na li nga xam ne moo di avance am yëglikaay bii di sunu làmb xëy tey ñëw wax ci wan ñu Modou ak Ama ak Luc Nicolaï ca digg ba jafe-jafe moom mu nga foofa ca booba combat waaye jafe-jafe na saison bi nga xam ne ci lañ nekk day daa mel ni ñi nga xam ne ñoo di VIP moom li leen di yoot wala sax làmb ji ci boppam mooy saison bu tëj bëre bañ a tee am jàppal moo tax nag fi mu nekk nii moom génn sax defatuñ ko la ko waral nag mooy coronavirus ba nga xam ne moo dugg ci àddina bi tey jaaxal nit ñi bu baax a baax a baax ka nga xam ne nii wala journal bi di record ñëw na ci lu mel ni kii noonu mu mel ni kii nag gars yi fi mu nekk nii day ku ci ne am nga xeet woo xam ne moom ngay doxale tafaatin moom nee na li leer ba leer moom footing lay def ci place yi su guddee loolu mooy taxawaayam fi mu nekk nii moom képp ka nga xam ne nii nag moo di rëg-rëg moom nee na benn chance lay def ci place bi te bu koy def itam masque lay jël sol ko ci kanamam fatti ba kanam ngir bañ lu ko dugg fara bu parcelle mbooloo moom nee na lii leer ba leer moom itam benn science wala boog dina def daal science gi suba bi ak ngoon gi wala ba ci guddi gi moom Franc daal noonu tamit la ko jàppe saa ca ki Balla gay moom itam nee na moom daal science ya muy def ca ya la koy defee giri de di rakki giri boora moom tamit wax na de nee na moom daal la muy def tamit moom fi mu nekk nii wàññi na ko kam koy àndal di def nag moo di lagros ak Pape Ndoye loolu mooy ay waxam ka nga xam ne moo di ordinateur tamit di yëngu ci mbirum simplement moom tamit daal nee na daw lay def ci guddi gi moo di record la loolu nag la ko keree du lenn loolu la nga xam ne moo di coronavirus ba nga xam ne moo wër àddina bi fi mu nekk nii li leer ba ree nag kenn koo xam ne ni moom mbër la ci làmb ji moom bu coronavirus ba tëjee ñële moom daa mel ni ay atam ñu ko bëgg a dab ci làmb ji tereeti koo bëre muy bombardier bu mbuur mu mel ni ki nag fi mu nekk ni moom record xamal nañu ne day mu ngay jege nag ay atam ngir war a jeexal làmb ja te nag boo bëggee dégg-dëgg saison 2019 2020 bii moom daa mel ni moom faw mu ko ak atum bañ a bëre maanaam année balance loolu moom leer na record tamit xamal nañu ne day Siteu bu yeboo mu waaj ndax nag li am ba des daal mooy kii nga xam ne moo di roi des arènes bi di Modou moom ka nga xam ne moo di Papa Sow la àndal di ko jàppale guddi gu jot ñu nga ca place su bés na ci ay contact yu méttee métti maanaam daal mooy sparring partenaire am record xëy tey ñëw wax nu ko leneen loo xam ne tamit dañuy dem fa nga xam ne nii wala ñu dellu fa nga xam ne moo di sa sunu làmb fekk ko fa mu mel ni kii nag Amadou Kati Diop ma génnoon démb daal di tuuma xamal arbitre yi Malick ñi moom ma nga xam ne moo jiite école de yi daal la mu xëy xam le daal ne na li leer ba leer la muy ñaan mooy ñu jéggal arbitre yi te itam nag ñu waxtaan waaye arbitre yooyu day am na ca koo xam ne moom tontu na Amadou Kati Diop ba mu saf sap mu mel ni nag Wenceslas moom tontu na amadu Kati Diop ba mu sap sap daal xamal na ko ne moom la muy wax xëy na da koo xamul moo tax mu ngar daajoo ay micro wala ay rajo wala ay journaux bopp di wax la ko neex waaye ñoom daal la ñu ne xam nañ ko la ñuy dund itam xam nañ ko mu mel ni kon daal Amadou Kati Diop moom tontu ba moom forox na tool tey itam xaaruñu temps bu yàgg ngir arbitre ya tontu ko keneen koo xam ne tamit daa mel ni moom arbitre ya lay jàppale wala mu ànd ak ñoom mu nga ci yëglikaay bi di la soleil bala Gaye 2 daal boo bëggee dégg dëgg moom ci yëglikaay bi di la soleil moom daa mel ni ña nga xam ne nii daal moo di arbitre ya mook ñoom ñoo bokk gis-gis wala boog daa mel ni koo xam ne daal mu ngi leen di soutenir soleil yëglikaay moo xëy ñëw tamit wax ñu lu mel ni kii noonu kon daal li leer ba leer fi mu nekk ni moom coow li bëri na ci mbirum arbitre yaag loo ci mën a dégga ak CNG ku nekk yaa ngay wax la nga xalaat wala ngay wax na nga ko gisee waaye ñeneen ñoo xam ne nii moom yëglekaay bi daa ñëwoon ci ñoom démb muy presse bi ak na ñuy liggéeyee jigéen ña wax góor ña wax waaye yëglekaay bi xëyaat na ci tey ñëw de ka nga xam ne nag mooy baaba kër ba ci Leewtoo TV wala bu Babacar Diome bokk bu Leewtoo TV yëglekaay ba wax na ak moom moom nag xamle ko daal mooy li leer ba leer daal liggéey ba moom wàññi nes ko bu baax a baax xanaa xëy neuf heures wàcc treize heures te itam xool li paase woon wala li fi desoon ñu di ko indi di ko jox gaa yi waaye li leer ba leer daal tey jàppal moom covid 19 bii moom loo ci mën a dégg yàgg lakkale na xanaa nu ñaan yàlla mu jële ko ci àddina bi yépp te itam nag di moytu waaye itam nag gëm nangu ne yàlla mooy dogal te lu ko neex lay def ndax nag balaa moo xam ne dëgg dëgg dëgg jaamam nga yàgg maar mu tegal la nattu nga accepté ko loolu moo fi ne nan ñaan yàlla rek xanaa dina ko dàq te nuy raxasu yàgg mbaa yaa ngi raxasu salaamaaleykum mbokk yi suivre Leewtoo TV ñu leen nii bu baax di leen ziar di leen jëfal di ànd ak yéen ci seen euh, revue de l'arène ak euh, sama mag sama xarit Babacar ginnaaw bi mu defee li nga xam ne ni mooy revue de presse bi ñu jublu si jàngat bi Babacar nuyu naa la. <laughs> sa mag lay fay <laughs> sa mag sa xarit ah noonu lay demee kon sama rak sama xarit waaw loolu moom am na solo. àddina yëpp ak ñuy dégg ah nañ koy dëggal ma ak yow du loola war a amam <laughs> kon baax na maa ngi lay nuyu waaw ah, Babacar euh, maa ngi lay fay ñu daal dugg li nga xam ne ni mooy euh, jàngat bi ñëw ci combat Modou Lo ak euh, Euh, ki nga xam ne mooy Ama Baldé mu nekk combat royal bi ñëpp di xaar mais fu mu toll nii nag euh, nit ñi suñu lamb ñëw daal wax ni njàqare bi nag euh, mi ngi mi ngi gën a taxaw parce que kii di ko Nicolaï mi ngi fële ca prison ba léegi li nga xam ne mooy Modou Lo ndax dina jot avance am question yu bëri yi nga xam ne nii amagul réponse ci combat bi. waaw loolu daal mooy li nga xam ne nii actuellement defe naa ne loolu moom wax nañ ci waxati ci ci diggante ki nga xam ne nii moo di Luc Nicolaï ak combat boobu nga xam ne taxawal na ko te te bi mu ko taxawalee yaa ngi dégg li am solo mooy bi mu taxawalee combat bi mooy xam nga taxawal na ko war a ko tëgg mais li ci des mooy yàlla dandi dogalam mu dem ci kaso bi ñu ñaan yàlla yàlla jëlee ko foofu loolu nag su amee comme li olof yi wax rek. Euh, Boury ak Mathieu Lem man mënuñoo ànd yaa ngi dégg li ci des mooy ñaanal ko yàlla yàlla génne ko foofu ba loolu mu mën koo tal waaye fi mu nekk nii dañ ne déet fi mm, na waar luy jëli bakkan moom defe naa ne fu ñu koy coowee fi mu nekk nii daal ay sa nekk nii moom mbir yi doo xam les di wax daal parce dafa jaxasoo actuellement waaw mbir yi daa mel ni fi nekk nii daal loo xam ne waaw doy na waar daal doy na waar waaw yéeme na trop parce que tamit bu ñu sañoon vraiment promoteur bi day tëgg làmb ji ne si biti ñaari mbëri dat ba jot ñu bëree ko Séné àddina mën a jëm kanam Sénégal jëm kanam mais gis nga wax nañ promoteur bi yàlla indi ci moom dogal ñu ne déet ne waaye yàlla indiwaat beneen dogal boo xam ne waxuma sax promoteur waaye moom royaat waaw xaw ma nu ñu leen di tudd ñëpp sax fi mu ne dañoo am jax njàqare ay sax waaw waaw njaaxare bi fépp la Babacar parce que feebar bi toll noonu guddi yu ñu nekk ñu jógee foofu noonu daal dem si ki nga xam ne nii mooy euh, Malick Gningue di président école bi nga xam ne nii mooy xam euh, sa cosaan moom nag euh, mu génn daal di ñëw ci li nga xam ne mooy coowal arbitre bi moom nag mu leen di ñaanal grâce ci fi nga xam ne mooy CNG bi. maanaam ñu jéggal leen lay ñaan waaw ah waaw loolu de mën naa ne parce que tamit li am solo mooy bu fekkente ne ñoom ñoo olof da koo wax ñi bokkute ñuy laxa soogoj arbitre bokk milieu bi di liggéey yaa ngi dégg am na aj am na ñi jàpp nañ ne aj waru ko am ak rajo bi ñu ca des na gis gis leneen moom mu jàpp ne nañu waxtaan jéggale am loolu defe naa itam xel nangu na ko parce que ñoo bokk Sénégal te ñun ñëpp ay sénégalais lañu kenn mënta génne sa moroom ci réew mi kon li am solo mooy bu réeroo nag du faral di ñàkk ci ay diggante ay nit mais li am solo mooy bu réeroo amee nañu waxtaan te yàlla tax waxante dëgg jéggalante ku ci ne xam la ca say responsabilité nga jéem ko taxawal la ca matul nga matal ko bu ko defee Sénégal jëm kanam Aïcha waaw dañuy des ba tey ci coow lamb yi parce que ki nga xam ne nii mooy Wenceslas moom ñëw na tey tontu ki nga xam ne nii mooy euh, Amadou Kati Diop suñu père boobu noonu ginnaaw bi mu defee dem sorti wax ci li nga xam ne nii mooy euh, reliquats yi kii kii téye euh, arbitre yi téye yu ni mel mm-hmm. ñoom nag ñëw na moom daal kàddu li nga xam ne ni mooy euh, parolu arbitre daal di tontu. maanaam wax ci seen kàddu ay Aïssatou fay waaw loolu la def moom euh, Weslas ah kon moom itam daa mel ni kat yi daal wala fa koy wax tontu du forox démb mu génnee moom am lu mu waxal arbitre yi daa mel ni ñoom xaaruñu mu sedd waxal nañ xamal nañ ko ne daal loolu muy wax xamu ko te maîtriser wu ko ah li am solo nag mooy li ma waxoon sànq balaa ñu fi nekk te waxoon naa ko démb ah jëru fi nekk ñuy weerante ki a def li li am solo mooy dëgg nañ ko waxante te yàlla tax mais itam nañu suturaalante te waxtaan loolu moo am solo mais kantaan nag kii di wax fii kee di wax fekke di wax fa coow bu bëree dëgg day réer. nettali xuloo moom lu leer nga wax moom saaboo boo nettalee xuloo defaroo yaa ngi yàq léegi nag dafa am lu am lu ñu seetlu ci Sénégal gii yaa ngi dégg xuloo yi bëri na defante yi bëri mais ay sa ay jubalekat daa mel dafa xaw a jafe waaw te loolu vraiment su manqué rek jigéente yu bëri dina yàqu Babacar dañuy continuer ak ki nga xam ne ni mooy Balla Gaye Balla Gaye nag moom tamit daal dugg si li nga xam ne mooy coow diggante arbitre ak CNG ñoom dafa mel ni dafa jàppale ñi nga xam ne mooy arbitre bi moom ci la ci la solo yi daa mel ni daal moom arbitre yi la nekkal en face maanaam ñoom la àndal wax loolu nag xalaat gis-gisam la nit ku ne am nga droit gis am sa gis-gis ni lii warta dem ni warta demee nii waaye tekkiwul nag ànd ak arbitre yi tekkul ne da ngaa contre Alioune da ngaa bañ Alioune Sarr wala nangam xëy na gis-gis yu ute lay doon rek parce que mooy li lay wax rek arbitre yi mbër yi amateur yi ñun ñi di wax si làmb jeeg ku mu mën a doon ñun ñëpp ñoo bokk milieu bi kon li des mooy problème bi am na nañ ko teg ci taabal ji waxtaane ko xool na mu naay ñu def ko ba nga xam ne nii mbir yi day continuer te kenn du si gaañu quoi waaw ñu continuer ak euh, li nga xam ne ni mooy euh, record record daal di ñëw tey ak euh, Papa Sow ak Modou Lo kaw ñoom yëpp am nañ combat Babacar doon tey fu mu toll nii lépp taxaw na mais ñoom ñaari ñoo nekk ay sparring partenaire di entraîner pour que préparer li nga xam ne ni ci bés yi ñu jëm noonu. du ah, di préparer jëm ca Ama Papa di préparer jëm ca Siteu mu mel ni kon waa parcelle la ak waa banlieue bi entre Pikine ak Diamaguène mu mel ni kon daal ah loolu moo lay wan ne ñoom seen diggante. dëgëraay am na ci doylonte am na ci wóolonte am na ci ndax ñaar ñu bokk di contact moom jàppal ni wóolonte nañu ndax ku ne xam na làmb kon mu mel ni ki daal kon ah Siteu bu yeboo waaj Ama Baldé bu yeboo waaj ndax itam mu doog Ama tey xam-xamu làmb am nañ xam bi te itam carrière yi bi ñu jot a goo def na macha allah yaa ngi dégg Modou roi des arènes Papa am na lu mu wane ci ay yu bëri yu mu am ci làmb kon daa mel ni daal ñoom am nañu ay maanaam ñu ngi liggéey ngir fas yéene daan seeni adversaire waaye tamit nañu jàpp ne ñi ñuy bëreel ay xale lañ yoo xam ne am na lu ñu bëgg tey ci làmb muy Siteu muy Ama Baldé waaw. ñu dem euh, ci Reug Reug nag Reug Reug moom moo euh, waroon a bëre li nga xam ne ni mooy MMA mais dañ ko reporté ba tey si li nga xam ne ni moo xew ci àdduna muy coronavirus bi moo fa jaaroon mais Reug Reug mi ngi xamal ni fii ak mois incha dina bëri li nga xam ne ni mooy combat MMA woon. waaw loolu am na solo yàlla na ko yàlla def balaa ñu yegg ci 4 mois ba sa corona bi jeex parce que tamit corona bi actuellement taxawal na lépp te Reug Reug combat boobu defe naa si fin mars bi xaw ma lu ko waroon bëri Suisse yaa dégg mais gis nga tey comme li ma la sànq la rek xam nga mbir yi daa toll foo xam ne fi mu nekk a dafa dafa wu quoi moom nañ ñaan yàlla mi mën tey dogal daal yàlla jeexal li ba ku ci ne mën delluwaat ci Babacar dañuy jeexal ak euh, li nga xam ne mooy mbëri nag période bi nga xam ne nag euh, combat amul euh, dara amul ñu war a xoolaat seen i préparation xool seen i maintien record daal li ñëw ak ci mel ni ñoom Tapha Tine ñoom Franc ñoom Sa Thiès ñëpp ñu wax nan la ñuy li nga xam ne mooy période bi. waaw période bi moom dafa xaw a difficile parce que noonu ko record waxee xam nga amuñu combat beneen bi ci des Covid 19 bi ñëw na mel ni kon ñoom fi mu nekk nii ku ne yaa nga xool nooy liggéey si méthode bi nga xam ne nii da ngay adapté li ñëw maanaam liggéey yow xool noo koy gérer ah loolu nag actuellement moo fi des ah. comme tey olof na ko nga bëgg ay sato da am la fa sës li fi sës mooy ku ne xool nooy liggéey mais actuellement jaxasoo bi di liggéey mënatu la ne parce que nañ ko kenn ku ci ne ci ñoom am nga xalaat boo xam ne wala noo xam ne noonu ngay liggéeyee yaa xam yow kese lay doon wala yow kenn lay doon ak heure ba nga koy def mel ni kon daal ku ci ne yaa ngi bëgg a maintien li nekkoon sa yaram pour que su mbir yi yàlla dogalee mu jeex dara bañ la waaw nee nañ nit ki fexe ba dara du la bedd buñ la nee àcce rek nga mën a teg tegu ci tali bi def nii say morom ci loolu la ñuy tàggoo ñi nga xam ne nii ñooy suivre Leewtoo bi di leen ziar bu baax di leen jaajëfal di leen ñaanal jàmm di ko ñaan ci àddina bi yëpp di ñaan yàlla mu suturaal ñu daal di ñuy dàqal li nga xam ne ni mooy coronavirus bi daal di may wér képp koo xam ne rek ah, am nga ko ak fu mu munti nekk si àddina ñu lay ñaanal yàlla yëkkati la si jàmm ak salaam. amin Aysatu Fay madame ñaa yàlla na ko yàlla dogal barke yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax li am solo nag mooy tey sa boo gisee ma sol maayu Sénégal bi dama bëgg rek ñu xam ne ñu ñoo bokk ndey bokk baay ñu ànd joxante loxo xeex li nga xam ne mooy coronavirus bi ci suñu ginnaaw président ak le de la santé parce que président bi su génn di wax waxulul APR waxulul PDS waxulul réew mi waxalul Pastef waxalul kenn peuple bi la ñuy waxal ñun ñëpp ñoo ci bokk kon yaakaar naa muy opposition muy pouvoir muy religion yi tarixa yi yaa ngi dégg diine chrétien ba ak ku mu ci mën a doon rek ñun ñëpp tey nañu bokk benn xeex te defe naa loolu moo am actuellement def li nga xam ne ni moom la ñu digal ndax président bi génnul wax ne toog leen seen i kër bu kenn génnati à partir de vingt ndax dama leen di jaay doole wala maa moom réew mi non dafa am lu ñëw pour di ñu dal nar ñoo faagaagal moo tax mu ne nañ jël suñu précaution bu heure bi jote bu kenn génn nañ ko déggee noonu déggin bu rafet ñaan yàlla mbir mi jeex Sénégal mais jeex ci àddina bi ñi mu dalagul yàlla bu mu yegsi ci ñoom ñi mu dal yàlla na leen yàlla wéral di nuy suñu mbokk muudu muur yi nekk à l'étranger leen wax ne tout le ñu leen di bàyyi xel di leen fàttaliku parce que ñoom itam vraiment am actuellement am nañ njàqaare am nañu yaakaar xam nga ñoom Ousmane Diop maa ngi nii bu baax a baax ñoom Benzema fu ci waay nekk rek ñoom Ndongo Fall Youssou Ndoye tamit maa koy béggee parce que am na benn don boo xam ne nii actuellement préparé na ko pour jox ko nit ñi te loolu yépp ci participation la bokk pour jàppale ci réew mi pour wane ne que yow sénégalais nga di sama rakk di sama xarit di international nekk di ci France di ñaan jàmm Aïssa Faye di la nuyu di nuyu Moussa Ñaa Moussa Ñaa nag bu dellu see kër ga waxal ak moom waaw yéeg bi xaw bi rombi xob te damay bañ mu daanu gaañu waaw du si ñàkk nag Babacar papa nga tàndaa sa parfois ma jékku la rek àdduna moo demee noonu ñu leen di jox rendez-vous suba incha allah.